moo ko indi bi ci jiitu muy fan yii ñu nekk am na ku ñëw ci dëkk bi di am ay yëngatu yu mu fi def ma bëgg koo présenté waat encore sénégalais yi ndax dafa mel ne dañ koo fàtteegul kan mooy sa Idrissa Seck sa Seck nit la koo xam ne nii danaa ci tënk ñeent rek fii ci dëkk bi di tuubaa deret gi fi njëkk a tuuru mooy sëtu Serigne Touba Idriss Seck moo ko indi ndax amoon na ministre de l'intérieur amoon na ministre de justice procureur mi ngi fi woon mais kenn prononcé wutoon ci dossier boobu menn moom rek moo ne woon nañ ko jëli ak nun ko mën a jëlee après après bi li yàlla dogal mu am moo wax ne duñ bàyyi n'importe qui muy def ci dëkk bi lu ko neex ci réew mi ak ak famille boo mën a bokk beneen bi ci tegee ñëpp xam na ne amuñu lu dul ñaari doomi Serigne tubaay yi mujj ci kaw suuf muy Cheikh Saliou Mbacké ak Cheikh Mouhamadou Mourtada ñoo nekk danoo tedd ci ñun bëri ba nga xam ne duñ ci egg waaye dana xam ne lu ci nekk rek am na ay kàddu yu mu fa yëkkati woon ci ay jamono yoo xam ne umpul murid yi loolu umpul murid yi bërki démb la ca kàddu yooyu dëppoo ak kàddu yu tegg ne beneen bi ci tegee muy boo xam ne bu ma jege la am ma lu dul moom moo ma boolee ci sëriñ Tuubaa bu taxee ñuy wax Modou Baara Doli muy sëriñ Baara Doli Mbàkke fii la taxaw ñu ànd ak sëñ Baara di xeex di xeex di xeex ba indi Ablaye Wade teg ko ci ci réew mi ban ko tegee ci réew mi benn poste vice président assemblée nationale bi PDS amoon ci biir euh, bi mu nekk opposant sëñ Baara Doli la ko Ablaye di joxoon jox ko numéro 4 loole ba mu amee. bis ba nga xamee ne ñëw na assemblée di CC ba mu wooyee sëñ Baara sëñ Baara na ko Mbàkke lam ko wax publiquement mooy sëñ Baara xanaa xamoo fii kenn du fi wax Mbàkke président lañ fay wax loolu ba mu amee ba mu koy rappelaat sëñ Baara na ko ba yomal xëyam Mbàkke laay wuyoo ba muy rappelé loolu ba muy rappelé waat di defaat vice président yi bi mu egsee ci turu sëñ Baara Doli ci turu sëñ Baara Doli da ko effacé def ko député simple kon jàpp naa ne ki nga xam ne mooy xeex ku wuyoo Mbàkke ci biir assemblée nationale tey bu del siwaatee taxaw biir Touba gii dama jàpp ne murid yi moom fàttiwuñu ca murid yi amuñu ku dul sëriñ Bamba yaakaar ñu ku dul sëriñ Bamba ca ku jàpp ne mën nga leen a nax da nax sa bopp ku jàpp ne mën nga leen a nax da nax sa sa bopp parce que damay wax ne sax bu ma déggee benn leader wala dara ñun ñii def politique xam lan mooy politique di wax naan man murit laa di ko wuyoo man ay rey damay jàpp nit bu nekkee murid koo ko nekkal sa bopp koo ko nekkal Serigne am na ku ne ku ne rek Serigne Touba am na ko kon jàpp naa ne nit ñi nan bàyyi xel ne loolu démb la rek bërki démb la rek beneen bi ci des. gis naa dernière sortie muy wax ñàkk goo xam ne ki nga xam ne moom lan àndal muy président Macky Sall ñàkk na ko jox cër président Wade man jàpp naa ne ba tey nit ñi dañoo fàttewul kan moo fi doon tudd nan la nit juddoo di créer ba ñëw ci biirum ndeyam loolu yéen ñi jàng na nasaraan yaakaar naa mënumaa prononcer moo boobu waaye xam ngeen ko yaakaar naa ne ka dem bay wax loolu ci mag ci biir réew mi ñëpp di ko dégg. kooku warut jox benn leçon kenn kon nit ñi jàpp naa ne fii di Touba bu jàppee ne loolu muy doxal wala loolu muy gëm-gëm.